mbokki internet Mak TV euh, Sénégal gannaaw ñu leen nuyoo ñu amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme niñ koy euh, faral di amalee bés bu jot rek ñu fas yéene na dégtal xibaar yi li si gën a fës dañ koy rekk daal di tàmbale ak conflit ba nga xamante ni moom moo am ca Casamance. loole nag tax ba armee bu Sénégal alaati amal ab cong ci ñi nga xamante ni rek ñoo di mouvement de forces démocratiques bu Casamance maanaam ñoo ñi nga xamante ni ñoo di waa MFDC nekk njoñu Salif Sadio yooyee ba bokk ca xabaar yi nga xamante ni am nañ ko song boobee nag mu nga am ca boori Karunar eh, Karunar eh, nag nekk benn base bu xamante ni ñooñu Salif Sadio yi ñoo ko moom ba tax na opération yooyu nga xamante ni moom la ñu amal foofee sax daanaka tamuñ dañ ko tàmbali daanaka dimanche bii rek ñu daal di génn bu ñu sukkandikoo si direction de l' information et des relations publiques bu eh, armée bi li mu daal di xamle mooy que ni yooyee cong nag liñ si rek daal di juble moo liñ si daal di jublu sax moo di di neutraliser li nga xamante ni moo di yi nga xamante njoñu Salif Sadio yi dañ ko rek daal di am euh, ba tax na bu ñu sukkandikoo ba tey ca armée ba moom sax mu daal di xam ne nii euh, yooyu nga xam yooyu cong nag dina daal di tax na rek ñu daal di euh, dindi yenn base yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ca boori Gambie te ñi nga xamante ne rek ñoo di njoñu Salif Sadio yooyu di fa rek daal di amal ay song di rek daal di amal ay jëye foofee ca boobee barab song yooyu nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci ñi nga ñoo di waa DURPA tax na rek lu tolloog ci ay doom maanaam ay a doomu aadama yu takk yoo xamante ni nekkoon nañ ca boobee dëkk daal di daw dugg ca foofee nga xamante ne rek mooy ca euh, Gambie ba tax na rek euh, ñu ñu sukkandikoo ba tey ca yooyee xibaar ki nga xamante ne rek moo di euh, état bu Gambie daat nay génne lu toll xaalis bu takkoo takk pour rek daal di jël en charge ñi nga xamante ni ñoo di réfugié sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo daw dugg ci foofee nga xamante ni mooy ca biir Gambia ca conflit boobee sax la ñuy ba tey wax nag ci lu soxal Aminata Touré mi nga xamante ni ndiki démb mu ngi doon amal ab jano taskatu xabaar yi foofee nag mu daal di soulever boobee question gannaaw nag boo nga xamante ni moom Aminata Touré mu ngi sàkku ci ki nga xamante ni moo di euh, Ousmane Sonko pour rek mu daal di wane position ci euh, problème boobu nga xamante ni daanaka am na lu tollook juróom fukki at moom Aminata Touré euh, daal di xam ne rek kookee nga xamante ni jamono ji mooy meeru Ziguinchor moom nag daal nay war a wax nan la féetee ca boobee coow daal nay xam na ni sax euh, kii di état bu Sénégal ndikki 2012 ba tey muy rek daal di privilégié li nga xamante ni moo di négociation yooyu pour xool nan la ñuy def ba jàmm rek daal di mën a dellusiwaat foofee nga xamante ni mooy ca Casamance ba tax na moom Aminata Touré euh, ca boobee occasion sax mu daal di euh, dénoncé maanaam métit bu baax li nga xamante ni rek moo di noppi bi nga xamante ni moom la yenn acteur politique yi acteur politiciens yi daal di rek noppi ci li nga xamante ni mooy conflit boobee am ca Casamance moom Aminata Touré nag gannaaw boo xamante ni Euh, benn journaliste daal na koy laaj ci lu tax rek mu daal di tudd Ousmane Sonko moom nag dafa rek di xam ne ni Ousmane Sonko moomee moom mooy euh, li nga xamante ne rek moo di euh, maire bu ville bu Ziguinchor ba tax rek moom moomee daanaka depuis boobu ba tey gisul benn yoon boo xamante ni rek daat nay réagir gannaaw boo xamante ni armée bi maanaam rebelle yooyu daat nañuy song li nga xamante ni moo di armée bu Sénégal daanaka lu yàggul dara ba tax na moom moomee nga xamante ni mooy Aminata Touré ture na ci ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mu daal leeral nit moom moomee fan la taxawee ca euh, boobee euh, mbir nag nga xamante ni euh, kii di Aminata Touré moo ngi woo kii di Ousmane Sonko pour rek mu daal di leeral position am ca coow loolee nga xamante ni moo am ca Casamance moom Ousmane Sonko nag mu ngi doon yëgal nit ñi rek nii dina rek daal di dem wuy ji nga xamante ni rek moo di OFNAC maanaam office national de lutte contre la fraude et la corruption moom Ousmane Sonko nag daal xam ne ni dina daal wuy ji daanaka semaine bi rek ñu daal dëgmal pour rek daal di itam euh, wane li nga xamante ni rek moo di def li nga xamante moo di déclaration de patrimoine am moom nag gannaaw bu nga xamante euh, fal nañ ko ci lu yàggul dara ca bopp euh, ville bu Ziguinchor moom Ousmane Sonko nag war a dem wuyu ji nga xamante ni daanaka ab obligation la ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca bopp li nga xamante ni mooy yenn ci ay direction moom Ousmane sonk nag gannaaw boo nga xamante ni daat nay publier loolee moom sax moo ko daal di annoncé ca benn réunion boo nga xamante ko doon amal ndikki démb foofee nga xamante mooy ca conseil conseil municipal bu ville ba moom Ousmane Sonko daal di xam ne sax ni moom loolee nga xamante ni moo di patrimoine am moom nag daanaka amul leen loo xamante ni daal na si yokk gannaaw ba nga xamante ni wane woon na ko daanaka lu yàggul dara moom Ousmane Sonko nag daal di xam ne ni moom amul xaalis amul dara loo nga xamante ni daal lu extraordinaire la lu nga xamante ni war nañ ko rek daal di euh, souligner moom Ousmane Sonko daal di xam ne ni loole wane woon na ko waaye nag semaine prochaine euh, incha allah du demee foofee nga xamante ni mooy ca of nag nañ ko rek euh, daal di rendre public ba tey xibaar yi ñu daal di nag wax ci leneen dem ba fa li nga xamante ni mooy ca Sindia Sindia nag ki nga xamante ni moom moo nekk ca bopp mairie ba dañ ko rek daal di teg loxo moom moom mi nga xamante ni moo di euh, Thierno Diagne Thierno Diagne nag ñuy daal xamal ni ndikki démb nag la ko gendarmerie bu Sindia daal di rek teg loxo moom moomee nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci journal bi di Les Échos moom mi nga xamante ni moo daal di joxe lii di euh, information boobee moom daal di xam ne nag kooke nga xamante ni dafa bokk sax ci benn bokk yaakaar dañ koy tudd rek ci dossier boo xamante ni dossier bu mag la moom moomee sax dossier boobee nekk tax ba ñu di kay euh, teg loxo euh, ndikki euh, démb moom dossier boobee nag bu ñu sukkandikoo ba tey ca xibaar yi nga xamante ni jëlee nañ ko si journal bi di Les Échos moom muy daal di xam ne nag benn dossier la moo xamante ni sax ci dafa daal di takk ci affaire arnaque foncière loole nag tax ba moom moomee nga xamante ni moo di Thierno Diagne jamono ji ñu daal di koy teg loxo foofee nga xamante ni mooy ca confi mooy ca ba ba bu ñu sukkandikoo ba tey ci journal bi moom muy daal di xam ne nag loolee euh, boobee coono nag toll na si un milliard euh, dix un milliard sept millions de francs CFA yoo xamante ni jamono ji moom moo daal di dox ci digganteem ak li nga xamante ne rek moo di fondation bu Sonatel ba tax na jamono ji sax moom ki nga xamante ni moo di euh, kii di maire boobu nga xamante ni moo di maire Sindia nekk ci ab guuta bu ñu sukkandikoo ba tey si journal bi mu daal di xam ne ni sax enquête ca boobee euh, dossier xibaar yi ba tey ñu daal di dem ba fële nga xamante ni mooy ca université bu Cheikh Anta Diop euh, bu Dakar foofee nag administration personnel ba moom daanaka ñoom ñoo daal rek décrété ab grève boo xamante ni 48 heures lay daal di duré bu ñu sukkandikoo ca intersyndical bu personnel ba nekk foofee nga xamante ni mooy ca université bu Cheikh Anta bu Dakar ñoom nag daal dañuy euh, décrété ab grève bu 48 heures boo xamante ni ñoom jàpp nañu sax dafa renouvelable maanaam bu bu dàkko bëgg bu bu amul dinañ ko rek mën a ndollantiwaat décision boobee nag ñoo ngi ko daal di jëlee ndiki démb gannaaw bañ doon amal ab assemblée générale euh, foofee nga xamante ni mooy seen boobee siège ba tax na bu ñu sukkandikoo ci le soleil mi nga xamante ni moo joxe boobee xibaar ñi nga xamante ni nag ñoo di intersyndical boobee li ñuy daal di revendiquer bokk na ci li nga xamante ni moo di rek euh, li nga xamante ni rek moo di recrutement wu ay vacataires wala sax li nga xamante ni rek moo di ñu daal di xoolaat taxawaayu li di euh, lii plateforme sanitaire bi nga xamante moom moo leen war a jël en charge waaye namit bokkaat na ci yeneen revendication yi nga xamante moom la ñuy euh, daal di euh, xeex mu rek li nga xamante ni moo di seen ay euh, droit yi nga xamante ni bokk na ci di participer ci élection wu chef de yi nga xamante ni ñoom dañ koy daal di amal ba tax na kon mën nañ jàpp ni rek administration ba nag nit ki démb daat nañuy amal 48 heures de grève yi nga xamante ni ñoom daat nañ koy décréter Kédougou la ñuy daal dem nag daal wax ci coow li nga xamante ni moo daal lëmbee Euh, Sénégal mu di rek euh, bébé boobee nga xamante ni mu ngi am lu tollook ñett euh, juróom-ñaari weer yi nga xamante ni moom moo réeroon te ñu mujjee kaa fekk ca teen ba ñu daal di ko fay sàndi boobe bébé nag am na gannaaw ba nga xamante ni daat nañuy jàpp ki nga xamante ni rek moo di wujju yaayu xale boobe am na beneen nit boo nga xamante ni moom it daat nañ koy tegaat loxo kooke nag bu ñu sukkandikoo ca xabaar yi nga xamante ni am nañ ko benn dëkkandoowu ko famille boobee xamante ni rek moo di ki nga xamante ni moom la ñu rek daal di jot a tegagum loxo ba tax na kon jàpp nañ ni boobu moom moo nekk ñaareelu doomu aadama yoo xamante ni daal nañ leen teg loxo ca mbiru xale boobu yi nga xamante mu ngi tudd sax Lassana Wagué mi moom daanaka mu nga réeroon le 10 mars bi rek ñu daal di génn gannaaw boo xamante ni yaayam joojee di Aminata Sow bàyyi woon na ko ca néegam muy nelaw te damoon ca boutique ba doon rek daal di euh, jëndi ba mu ñëwaatee nag la fekk liir ba daal fekk ca ba mu di rek euh, faatu kon nag ñu jàpp ni am na ñaareelu doomu aadama boo xamante ni ah, teg nañ ko loxo ca mbiru ah, xale boobee nga xamante ni moom moo la ñu fekkoon ca boobee ah, teena ñu jóge foofee nag dem ba aéroport bu Yoff foofee nag ab jëye moo fa am ndiki démb gannaaw nag ba xamante ni benn ouvrier daat nay ñàkk bakkanam gannaaw ba xamante ni ab dal daat nay daanu ca kawam foofee nag nga xamante ni mooy ca aéroport bu Léopold Sédar Senghor gannaaw ba xamante ni nag ñu pavillon présidentiel ba nekk ca boobee aéroport noonee nag la euh, jëye boobee daal am ba tax na bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi di libération moom mu ngi daal di xam ne nag xale boobee ke ca jot a ñàkk bakkanam sax di euh, seethaam moom moomee nag gannaaw ba nga xamante ni daal ba daat nay daanu seen kaw moom nag da see mujjee rek daal di ñàkk bakkanam gannaaw ba nga xamante ni moom nekkoon na ak yeneen ñaari xarit yeneen ñaari euh, liggéey ñoo xaritam ñoom la bokkoon doon amal boobee liggéey ñoom ñaar ñooñu nag ay gaañu gaañu lañ si mujjee jële waaye kooke nga xamante ni mooy mooy seecaam nag gannaaw bañ koy évacué ca boor ca hôpital ba ci la mujjee rek euh, daal di euh, ñàkk euh, bakkanam xibaar yi ba tey ñu daal di koy wéyal wax nag ci lu doy waar li nga xamante ni moom moo xewee fële ca yëmbal yëmbal nag lu doy waar moo fa am gannaaw ba nga xamante ni ab bande de agresseur maanaam ay dafkatu ñaaw téef daat nañuy attaqué ñi nga xamante ne rek ñoo di waa policier yu commissariat bu yëmbal gannaaw ba nga xamante ni ñoom ñooñee nag ñii di dafkatu ñaaw téef ko benn taximan ak benn agent wu euh, technique bu UCG loolee nag gannaaw boo xamante ni am na euh, ñii di euh, ñii di policiers yi commissariat bu yëmbal bi nag gannaaw ñu doon amal ab patrouille ñu daal si tombe noone nag lañ daal di intervenir waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di defkatu ñaaw teef yooyee tolloon ci cinq personnes ñoom bàyyi wuñu noonee mu daal di seen mu daal di sedd ndax kat ñoom dañoo jël seen i ay paak ak seen i ay jaasi fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante rek ñoo di boobee ba tax na nag gannaaw gi ñu daal di amal ab jàmmarloo bu daal di yàgg te daal di dëgër lool ñoo ne nag la ñi nga xamante ne rek ñoo di commissaire euh, ñooñu commissaire ba daal di kenn ca ñoom daal di rek tiire ca kaw laataa rek kenn ca ñoom waaye nag loolee tax ba ñi nga xamante ni ñoo di ay àndandoom yooyu sax gën a mel ni lu daal di xabtalu daal di continuer li nga xamante ni euh, mooy euh, cong ba waaye nag finalement ñooñu nga xamante ni ñoo di waa commissaire ba moom dañoo mujjee rek daal di neutraliser kenn ca ñoom kookee di IS nag moom ñu daal di jàpp ni sax moom gannaaw ba nga xamante ni yóbbu nañ ko euh, ca euh, commissariat ba ñoom ñu daal di xam ne nag kookee daanaka euh, maanaam moom bés bu jot rek mu daal di am ay plainte yoo xamante ni danañ ko fa daal di andil waaye nag am na keneen koo xamante ni moom mit mujjee woon nañ ko sax daal di teg loxo mbir boobee nag mu ngi xew ca booru 5 heures du matin gannaaw ba nga xamante ni daal ñu ngi doon amal a patrouille foofee pour rek daal di sécuriser li nga xamante ni moo di boobee quartier noonee nag la ñi nga xamante ni ñoo di waa commissariat waa commissariat daal di tombé ca boobee euh, action noonee nag lañ daal di euh, intervenir jamono ji nag moom euh, ko nga xamante ni ñoom lañu daal di teg loxo nag moom jamono ji mu ngi ca loxol yoon. loolee sax mooy ndar képp xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax toujours bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo o temps réel.